Ousmane Sonko àddoo ci li ñu jógal commerçant yi di jaay ci marché bu ba tey mu jur coow ci diggante maire ba ak gouvernement bu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci meeru Fass Colobane dogal gi ci ministre de l'intérieur la jógee moom mi def ab circulaire ngir ñu amal li ni mel. yaakaar naa ne xëy na bu jëloon information bi mu war a jël ah si ni mu ko war a jëlee ak fa mu ko war a jëlee ak kam se ka mu ko war a jëlee kon du ñu egg ci li ñu egg dem. ministre de l'intérieur moom it indi ci tontu. ministre du sant maire dafa am lu ñuy wax pouvoir déconcentré ak pouvoir décentralisé masse circulaire s'adresser aux autorités administratives. mu di mbir moo xam ne nii mën na indi jiixi jaaxa ci diggante pouvoir décentralisé ak pouvoir déconcentré bu état mu di ñaari anam ci ni ñuy jiite communes yi ñaam wuute nañu waaye dañoo war matalante bu ñu sukkandikoo ci ndeyu charte réew mi. bu dee mënuñoo méngale ñaar yi waaye tamit kenn ku nekk soxla nga sa morom ngir mën a liggéey liggéey bu mucc ay loole circulaire bi nga xam ne ni moom moo indi coow li di ko firndeel ndax ministre de l'intérieur moom naam gouverneur de région yi moom la jëbbal bi lépp circulaire waaye da leen ceewoo ngir ñu waxtaan ak président de conseil départemental yi ak maire yi ngir ñu xool nan la ñuy jooyantiwaate ay jafe-jafe yi nga xam ne ni nemmeeku nañ ko ci marché yi ak yeneen place publique sañ-sañ gannaaw bi nga xam ne benn jëwriñ jëbbal na ko ab mission mu amal ko te jiite personne morale de droit public yi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk ci région yi rawatina ci établissement public yi. loolee firndeel seen sañ-sañ ngir ñu amal yileeb opération waaye lu ci mënte am du jàmmi réew mi bu ñu bëggee indi jiixi jaaxa ci diggante chef de circonscription yi ci mel ni gouverneur préfet sous préfet ak maire yi te ñoom sax sañ-sañ yi nga xam ne ni moom lañ leen jébbal wàllum aménagement du territoire bokk ca loolee day wone ni diggante pouvoir décentralisé yi ak déconcentré yi waxtaan ngir matalante moo ci ne waaye waruñoo féewaloo